demam nga ump na mindéef te um na boppam kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem dañu fi ñëw ci ndigalul sa sa sa maam Baye Ahmadou Makhtar eh, ngir bis bi nga xam ni mooy ku tedd ki bi mu ñibbisee Touba muy téeméeralu at eh, mu waxoon nañ ko yaatal yaatal goo xam ni fépp fu ñu war a dem nam ko xalaate moom ak na bëgg ñu defee ko ni ñu waxtaan cee kilifa yooyu xamal leen ko dem nañ ci Cheikh Mamadou Mountakha dem nañ ci xalifa yi doomi sëñ Tuubaa yi dem nañ Daaru Muxti tey ji dem nañ Daaru Salaam démb dañoo war ñu war nag jaadu na ñu ñëw ci yow tey jii ci ndigalul commission bi yëpp ni ko sëñ Sidi Ahmed waxee ma ànd ak sëñ Abdoulaye ak sëñ Cheikh Ndiaye ñu ñëw fii ci turu sëñ Cheikh Abdoul Aziz mi nga xam ni moo jiite commission bi yëpp euh, kenn ku nekk ni ko sëñ Sidi waxee ne xam na li yàlla def ci yow euh, ak cër bi la suñ borom jox Euh, ak li nga doon ci Touba doon ko ci Darou Khoudoss te gis nañu sa taxawaay euh, ni nga daan màggale màggal gi ak gëdd gi nga koy jox rawatina at yi weesu nga xam ni euh, taxaw nga ko taxaw boo xam ni ñëpp teg nañ seen bët dundal ko dundal goo xam ni na ko sa maam ja suñu maam ja Cheikh Modou Moustapha suñu waajur Cheikh Modou Cheikh suñu wax Gaynde Fatma lu defee noonu koy defee kon jaaru nañu ñëw ci yow cër bi la yàlla jox ak dara ji yàlla jox ci Touba jox la Darou Khoudoss ñu waaxu ba ñëw ci yow waxtaan ceeg yow xalaat ni nga xam ne lu ko sëñ bi santaane lépp loo xam ne am nga ko ci xalaat ak taalibe yi nga dolli ko ci ak noo xam ni mën nga ko cee eh, jàppe ba mu mel ni ko sëñ bi bëggee loolu nag ginnaaw sëñ bi dafa am téeméeri at ñu ne léegi jar na ak taxaw seetlu ñuy wax taxaw seetlu jàngat ginnaawam li mu bëggoon ak doon ko taxawal lan lañ ci amee ak sëriñ bi ban taalibe la bëggoon ak lan la doon jàngale ñu xam ni sëñ bi ku bëggoon ni ku mel ni moom rek la bëggoon moom la doon tabax ku mel ni moom rek la bëggoon ak li mu liggéey ci lislaam léegi ko Seydina Muhammad alayhi salaam liggéey suñu borom subhanahu wa taala ak ñi nga xam dañ ko wut tam rek Cheikh Modou Moustapha ba ci Cheikh Modou Mountakha ak ñi nga xam dafa ànd na ñoom ba benn sos yoon wi ñii di ay jigéen ñaale ñii di ay taalibi ñii di mbokki deret ba ñoom ñëpp ànd ak moom taxaw taxawaay boo xam ne tey gis nañ Tuubaa li mu doon loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom sëñ sëñ a wax ni nañ ko yaatal suñ màggalee ba ci suba it far nañ def benn synthèse boo xam ni cérémonie religieuse lañ koy def foofu yi ñu ko daan defee maanaam tënk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ak li xam ne am na problème loolu lépp nag xam nañ euh, cër bi la yàlla jox ak mbooloo mi nga xam ne mi ngi sa loxo di la déglu euh, ñu bëgg ñëw wax si la lii mooy bëgg-bëggu Cheikh Amadou Makhtar waaye Amadou lii mooy ab bëgg-bëggam. suñu suñu bopp lañ waaw sensibilisation yi si war a yëpp daañu ko daañu ko def. si war lépp daañu ko def. waaw kër gi gerte la ñuy doon. dañoo xam ne kër gi gerte la. waaw waaw waaw waaw ah. ñu jëm suuf si daal. waaw waaw luy defar luy. waaw dëgg la lu am solo la. lu am solo la tey taxawaay yu am solo la. day taxaw rek nag. waaw li mu ci war a lépp daañu ko def. daañu ci jëm daal. lay gàttal. ah ah jëm lay gàttal daal. demam nga umpuna mindeef te um na boppam kuy mindeef ku dul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xiim